ndak yooyu yaa ko jafalaat tey euh, mun nañ ni yàlla defal na leen li ngeen bëggoon ak euh, ñu jàpp ni sénégalais yu bëri yéene woon nañ ko Khalifa Ababacar sàll mu ñibbi ci ay euh, mbokkam loolu sotti na mais déjà ñi ngi dëgmal lan mooy doon recomposition politique bi seen politique bi lan mooy avenir u Khalifa Sall déjà yéen naka ngeen apprécier génnam gannaaw yéen a doon initiateur pétition bi nga xam ni taxaw ngeen pour mu génn waaw d'abord dañuy sant yàlla wax alhamdulilahi rabbil alamin ci mbégte moomu nga xam ni yàlla dogal na ajjuma bi passé Sénégal yëpp dundandoo nañ ko mbégte moomu law ba ñu amaale ci libération Khalifa Ababacar Sall li ñuy njëkk a wax mooy victoire peuple bi la donc mu nekk loo xam ni amul kenn kuñ koy wax ni yaa ko moom en premier lieu remercier le président de la République Macky Sall mi nga xam ni moo jël décret boobu mm. donc remercier aussi la khalife général ak à travers lui ñu remercier waale tous les xalifa généraux yi nga xam ni ñu ngi ci yeneen confrères yi parce que ñooñu ñëpp dox nañ ci ay jéego donc les femmes leaders yi nga xam ni bi sëriñ bi dugg see ndakaaru dox nañu ay jéego dox ay tànk dem seeti ci kilifa yëpp ba yegg ci sëñ Muntaxa mm-hmm. expliquer ko wax ci turu yaayu xalifa en tant que jigéen mm-hmm. donc wax ci jàmm jooju ñu doon dox donc remercier le peuple nga xam ne un million deux cent moment bi nga xam ne ni ñu ngi doon waaj a clôturer fa lañ tolloon mm. diaspora bi waroon organiser le 5 récemment pour defaat yeneen organisation donc muy peuple Sénégal moo doon réclamé wu ñu libérer xalifa Ababacar Sall ñun nag COS M23 dañu jëloon initiative bi donc comme ñun ci suñu citoyenneté active la ñuy def dafa am rubrique bu tudd droits humains donc bi ñu demee ba gis procès bi ni mu doon déroulé. Mm. Euh, wal moment bi mu nekkee ci procès bi di nekk procédure bi dañu mm. doon suivre di seetaan. Mm. mais bi ñu demee ba gis ay jéego yu ci feeñ. yoo xam ne dem na ba nga xam ne procès bi nekkatul procès bu équitable. ci suñu gis-gis. parce que gis nañu ci diggante bi la xew ci Thione gisaat ci diggante bi la CEDEAO wax gis bi élection présidentielle yi jàllee aussi ñu ne. procédure bi jeexagul woon mu doon kandidaa bi ñu xoolee yëf yi di continuer ñu xool Khalifa Ababacar Sall continuer nekk ci kaso bi waajuram bu jigéen soxna Awa ñang di ko réclamer wu am nekk mag am 90 ans si la ñu ne comme dañuy xeex ak ak yelleef nañu jóg taxaw donc wax ak sénégalais yi def benn pétition bu ñu defee pétition adressé ko aussi euh, ñiy xeex euh, ak ak yelleef dem saisir yenn euh, organisation yi ci loolu la ñu dajalee pétition bi ba wër Sénégal ba wax ak ñëpp donc benn bi dox jàmm la woon mhm. beneen bi droits humains suñu cër la suñu waar la lépp loo xam ne dañu sàll salfaañi sa àq ak sa yelleef comme ni ñu ko defee woon ci Karim Wade defee ko bi ñu jëndee groupe parlementaire bi nangu ko ci Aïda Mbodj defee ko aussi bi Moustapha Diakhaté ne dañuy yokk groupe parlementaire quinze députés aloo nagu Euh, lenn leer na yéen yëngu ngeen ci bu wax waaye côté nguur gi it am na ñoo xam ni yëngu nañ ci ñun xam nañ Maw Maodo lu mu ci lu mu ci dox euh, moo tax euh, yelloon na ñëw toog fii waxtaan seek ñun Maodo côté pouvoir tamit defe naa naam mun nañ ne xalifa yi nguur la jotee loon mais yéen am na ñu ngeen ci taxawee tamit boo xam ni pour ñu aboutir à cette issue là. may euh, nuyu ñi ma fi bokkal jotaay bi yëpp. Mm-hmm. Euh, suma jeune frère Abou aussi ma koy encouragé ci initiative ak taxawaay bi mu bi mu am parce que dama xool lenn yaakaar naa ni moom amul benn amuloon benn intérêt politique. Mm-hmm. ci mbir mi mais dafa jógoon am am taxawaay bi nga xamante ne am na ci. Euh, loolu nag dafa am solo ci ci ci askan wi parce que toujours dafay baax ñenn ñi am yenn taxawaay yi. Mm-hmm. surtout bu ñu yaakaaree ni am na doxalin bi nga xamante ni war nañ ko mën a def mais dama wax nii rek Euh, booy seet du ñu delluwaat ci déroulement procès bi parce que mm. loolu xëy na jàll na mais li ma jàpp mooy euh, procès éthique équitable bu dee par exemple jël nga avocat dem nga ngay def ay recours woolu sa justice chaque fois euh, liñ la jàppee nekk li nga xamante ni xëy na ay fait la yu yu avéré donc duñ ci duñ ci dellusiwaat mais jàpp naa ni l'acte de dire que c'est un procès politique loolu peut-être mën nañ ko teg ci suuf bu fekkee mën nañ jëm ci kanam liñ ci wax rek mooy delloo Serigne euh, euh, Mountakha euh, Mbacké Bassirou delloo njukkal également askan wi yëpp mais comme ni ko Ibou waxee ñu abu ni mu ko waxee rek ñu delloo njukkal bu baax le président de la république Macky parce que am na ñaar yu ma noté man dama gis ni xëy na pétition yi amoon na solo. ci lenn mooy psychologiquement ki ñu jàpp. Mm-hmm. mu xam ni fàttewuñ ko. Mm-hmm. mais booy seet. li indi libération bi xëj na am na nag en tout cas lu ñu war a noter mooy dine que homme politique bu ñu jàpp ndekete yoo combat de rue wax ju bari ak xataraayu xëj na du ko du ko régler. pression daal maanaam. pression du ko régler parce que bi ñu koy def xëj na on était euh, loin de président Macky Sall bi muy jël décision bi on était loin de toute urgence électorale. amuloon benn amul benn élection bu nekk en amuloon benn manifestation de rue aussi bu ko bu ko wane ñu jàpp ni daal. man li may wax mooy di ne que euh, il a agi un homme intelligent qui a compris que euh, peuple bi euh, en tout cas les bu ñaan nañ ko procédure bi yegg si na ci fi nga xamante ni mën na ko mën na ko libérer mu mu libérer ko am na ñi nga xamante ni xëy na ci seen i analyse souvent dañuy wax ni rek c'est normal euh, ñu defoon ko mm-hmm. benn moment boobu mais ku comme décision bi jël nañ ko te moom jël nañ ko ci benn moment bi nga xamante ni sentir na ni war na ko jël et fekk na tout le processus jeex au niveau de la justice je pense que mu ñu lu dul rafetlu acte boobu saluer également euh, discours yi nga xamante ni dégg nañ ko pour wane ni que Sénégal waxuma réconciliation nag man laay bañ a dégg parce que le pays ne pas divisé. Mm. mais décrispation bi je pense que ku nekk war na ci jouer ce rôle ba nga xamante ni le peuple dina sentir ni l'essentiel mm. c'est d'aller au travail liggéeyal askan wi. Euh, nee na bëggul dégg réconciliation Charles mais lenn moom am na recomposition dina am et reconfiguration politique euh, vraisemblablement yow sa jàngat euh, lan lay doon. bon keroog waxoon nañ ko fii je pense que c'est tombé pile ah. nous on en avait suffisamment anticipé bon on n'a pas été surpris de ce qui s'est passé par la suite. je pense que di rafetlu ce que le xalif a fait waxoon nañ ko fii et que probablement. il a aidé le président dimbali na président bu baax a baax a baax pour que quand même se sortir du pétrin dans lequel lui-même s'est empêtré euh, parce que c'est quand même euh, Euh, quoi qu'on dise euh, sur ce procès-là l'instrumentalisation ak la rapidité à laquelle loo xamante ne l'appareil judiciaire dem na ko ñëpp gis nañ ko euh, c'était quasiment taillé sur mesure c'était sur mesure et c'était valable pour pour comment dire exactement Karim Karim Wade c'est exactement la même chose quand il s'est agi de ñu téye leen nga bu leen affaire yi gaaw na bon maintenant qu'est-ce qui s'est passé là où je suis pas tellement d'accord la rue ne s'est jamais manifestée aussi bien pour Karim Wade que pour que pour Khalifa Sall parce que mbedd bi bu manifesté woon xeex bi bu demoon si biti defe du fi donc ça veut dire quoi les hommes politiques ils doivent quand même se relativiser gën a liggéey auprès askan pour gën a dëgëral seen euh, auprès des populations maintenant man ce que je constate si biir euh, bi quand même gannaaw lu ñuy rafetlu mais je l'aime euh, su ma gis-gis suma ma jàngat mooy que quand même cette rencontre ce inauguration bi ça a été une grande aubaine pour le président de la République mm-hmm. quand même situation globale boo xamante ne quoi qu'on dise dëkk bi xaw wow na du point de vue économique il y a une analyse de mon de mon confrère de suñu confrère Barka qui est ici Barka Ba qui est très brillante comme analyse euh, qui de ce point de vue mais les situations la situation économique la situation sociale situation politique boo xamante ne bu tendu mais kan moo ko indi kan moo indi situation boobu je pense que le président Macky Sall finalement se retrouvant dans une situation très très très peu convenable pour moom pour moom de ce point de vue et surtout et surtout devant un seul un seul élément de de l'opposition muy Ousmane Sonko qui dérange au plus haut point et qui à lui seul cristallisé na lu bëri te buñ ko bàyyi dafay dem di gën a jël gën a jël doole euh, il faut aussi casser cette affaire là et pour te dire comment euh, man cette affaire je la regarde mais avec beaucoup de mesure mooy que quand même il a fallu que nous libérer pour que Ousmane euh, maître Ousey, euh, Ousmane Sey dem convoquer l'article L30 euh, du code électoral boo xamante ne passé na à l'Assemblée nationale en en juin deux mille euh, deux mille dix-huit ñu promulgué ko en juillet boo xamante ne ça parle de cette affaire de détournement et d'autres faits yoo xamante ne bu dee dañ la si jàpp munoo si bokkee du nit ñi bokk ci élection bokk munoo si si élection mais comme euh, hmm. Khalifa Sall bon il est là tu parles d'inéligibilité d'inéligibilité waaw hmm. mais justement Khalifa Sall étant un homme politique quand on va convoquer l'amnistie ça veut dire que la grâce ne suffit pas loolu it loolu it bëgg naa ñu waxtaan ci ah, euh, voilà donc euh, ndax amnistie ak grâce yi ñuy dégg pour homme politique yi kese la on on peut ils des Sénégalais à part entière. waaw quoi.